اللهم بأسمائك البهية والشعاعات العرشية والكلمات الربانية والطلاسيم العبرانية والأقسام الملكوتية والأسرار السريانية وتسابيح اليونانية إلهي برفيع السماء وقوة الأرض وهيبة الشمس وبسر الأعظم الذي بين الظلمة والنور yaa man kasa qulubu alcaarifin min nuuri aluluhiya wa yaa man arsala riyaha nushran bayna yaday rahmatih ilahi salli ala sayidina muhammad salaatan taftah lana biha abwaab alrida ilahi waltaysir wa tugliqu anna biha abwaab alshar waltacsir wa taqdi lana biha jamica alxawaaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira anta waliyuna fa niamal mawla wa niamal nasir ayuha almushahiduna alkiram fi daxili sénégal wa fi xaarij alwatan nuraxibkum kalaada fi kulli yawmi aljumaa wa naqulu lakum marhaban ahlan wa sahlan bikum ha nahnu alyawma fi intidarikum bidiqatin wa sururin wa baad naqulu lakum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziara leen di ziara ci àjjuma ji di leen ndokkeel di ziara ñi ci hôpitaux yi te wéradi yàlla na leen yàlla delloo seen sago di ziara kilifa diine ak kilifa aay di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziara ñi nga xam ne ñi dañoo nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal ñu ngi ziyaare ñi nekk baytilaal xaram suñu kóllëre ya fa nekk mbokk ya xarit yeeg am di jàmm di leen ñaanal yàlla xajjan mabruur wa zanban maxfuur wa saayan maskuur kulli xaal lépp luñ fa aj bëgg a dem te demaguñu yàlla na leen yàlla yóbbu yàlla na ci zaahir ak ci baatin senegal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla teg loxo ci sunum réew sàmm ñu sàmm képp ku fi yeewoo mbokk yi ñu ngi dellu siwaat kal aadati comme niñ ko daan defee àjjuma ji nekk ci waxtu yi di indil seen émission tafsirul axlaam muy firi gént inchaa allahu ñu fas yéen ànd yéen di leen ndokke nag ci weeru tabaski bu tedd wi di leen ñaanal yàlla képp ku ci am yéene yàlla yàlla mottali képp ku am lu mu bëgg a def te yàlla man loo ko ko yàlla na ko ko yàlla yombalal ñu fas yéene ànd ak ak askan wi wa ala kulli xaal di ñaan yàlla tabaski yi ñu dugg ci ci bismillahi arrahmani arrahim ñu jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu fekkee ay déwén yu bari mbokk yi dañuy dellu siwaat ak yéen comme niñ ko daan defee ci waxtu wi di leen wax ne nashkurukum gaayata shukri li xusni mutabaatikum maana fi barnaamijikum tafsirul axlaam wa nahnu ala kulli xaal fi intidaarikum kal aada bi haulaai al arqam xaalan inchaa allahu ida ittasaltum bina sa tajidunana xaadiran inchaa allah 88 628 04 05 wala ngeen ànd ak ñun 88 628 65 65 wala ngeen ànd ak ñun 00 221 33 841 22 99 Euh, muy numéro yi nga xam ne incha allah su ngeen ci àndee ak ñun léegi da ngeen ñu jot ñu jël seen i laaj incha allah lépp lu ngeen ci yittewoo euh, daañu leen ko leeral incha allah bi awnillahi euh, ñu leen di bàyyi xel ci 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 mbokk yi ñu ngi ñëwaat kala aadati comme niñ ko daan defee ci àjjuma ju nekk. Euh, fas yéene jukki bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi xaarandi askan wi euh, defe naa am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah bismillah. dama bëggoon laajte ñaari gént. bu mm-hmm. njëkk bi laajte woon naa ko mais liñ ko noté woon du noonu. Mm-hmm. dama waxoon dama amoon sëriñ boo ma doon jàngal alxuraan. da nga amoon. sëriñ bu may jàngal alxuraan ba ma doon jàngal alxuraan. sëriñ bu lay jàngal alxuraan. dama doon jàngal dafa génn àdduna. waaw man moom laa wax ma ne da la doon jàngal alxuraan. waaw. waaw. léegi nag ma ko. Mm-hmm. mu ñëw ci sama néegu bi sama waajur bu jigéen daan dëkkoon parce que kooku dafa génn àdduna mais gisuma sama waajur bu jigéen bi. Mm-hmm. allo waaw su du mënee duggaat incha allah àndaat ak ñun ci numéro yooyu njëkk ci ligne bi salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sant yàlla alhamdulilah. waaw man de maa moom benn laaj mu ma laajte. waaw bisimilah. en fait man de dama doon gént à chaque fois bu euh, doon jaar yoon je pense laa ko gént. maanaam su ma amee doom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di tuddee. da nga da leen gis. dama dama mhm. ko dama ko kan nga gént jigéen bu wérul kan nga gént. maanaam su ma amee doom maanaam Seydina Muhammad daal di tuddee sallallahu alayhi waaw. gént naa ko ñaari yoon waaye amagoo doom boobu. déedéet amaguma doom nag maa dama nekk diggante yooyu. waaw. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah dinañ ci ñëw léegi ñu jël keneen ki ci topp salaamaaleykum wa rahmatullah allo. allo. waaw bisimilah sëñ bi. waaw dama bëgg bokk ci kii bi. bisimilah. allo. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw bisimilah yaa ngi ci émission bi. allo. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu sëñ bi. waaw. Hmm. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa waaw. man damaa bëgg bokk ci émission bi laa wax. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw dafa am benn gént bu ma boo bëgg a ku ma ko wax. Hmm. waaw dama gént euh, nekk sama place. allo. waaw. Euh, bi ma nekk ci bunt bi fenêtre bi ma taxaloon. Hmm. ci laa gént am di wàcc wàcc moo xam ne daal day génn di dugg ci place bi ma taxaloon su ma ne saa mhm. mu ñu ngi génn am ndox mu bari saa wàcc moo xam ne comme saaru ndox daal bu di dugg ci place bi ma taxaloon ba taxaw ci buñu place am di wàccu ndox mu bëri di dugg ci place am waaw loolu daal moo xaw a jaaxal bokk ma ci indi ay leeral baax. Mhm. salaamaaleykum. waaw. waaw man damaa damaa place bi ma taxaloon laa laa gént. taxaw ci buntu place di wàccu ndox mi di euh, sama gimi di jéem ndox mu bëri di dugg ci dugg ci place jàmm ba ba ba place ñu jël ay di tax di di jénne mm-hmm. baax na dinañ ci ñëw léegi xam naa dégg nañ ko bu baax dinañ ci ñëw ah. léegi incha allah ma ne dinañ ci ñëw léegi bu soobee yàlla. waaw ñu allah incha allah incha allah. Euh, ñu fàttali askan wi rek 88 628 04 05 ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, man dafa am sama benn magu yaay boo xam ne dafa gaañu. Mm-hmm. léegi nag man saa mi dégg dama koy gént. dem si guddi maa ngi koy gént si biir gént bi dama maa ngi koy daw maa ngi naan ci dafa après du ma sopp mu naan ma taxawal woo sama tur ne ma taxawal taxawal si kaw dóor yi dafa métti comme si daal ñoom fi ñu nekk dafa gaañu mais dañ leen di taw ñu leen di dóor. Mm-hmm. léegi à chaque fois dama koy gént des fois ñu toog si benn bool di lekk. benn jour tamit gis mu nekk di togg si si waañ bi weñ si waañ bi ay weñ man daal chaque fois dama koy gént daal. Mm-hmm. ba pare saa yi ma koy gént suñu kër boo xamante des fois kër boo xamante ne ñun tëkku nañ ko bu yàgg des fois foofu laa koy gént ñu toog maa ngi moom ñu añ dama dem ba léegi su ma ko géntee damay daw. Mm-hmm. waaw merci loolu laa doon laaj. dina ci ñëw léegi allah. Ah, shukran nahnu ma zilna nantadirakum kal aada njëkk ci ligne bi salaamaaleykum. allo waaw allo. allo. allo waaw bisimilah. allo waaw man dama génn ñu ngi ziar tamit. yàlla yàlla na nga ziar. dama sama sama sama rakk bu jigéen moo gént woon ma lakk. sa rakk sa rakk bu jigéen moo gént. mais lakkee mu suñu kër. lu mu gént. ñu indi ma si oto bi. allo allo. ko. allo. allo waa. nga ne sa rakk jigéen lu mu gént. dafa gént man ma lakk sama tànk bi sama benn tànk bi lakk lakk ba ba ba bi di génn ba kii lakk bu metti daal benn tànk bi après ñu wàcc ma si oto bi may raam suñu waa kër ñëpp di yuuxu. Mm-hmm. après sama yaay gént tamit ñu rey nit daal. Hmm? deret bu bëri di génn mais xamul kan lañ rey. kan ci. moo ko gént. deret ñu rey nit daal deret bari la gis. moom moo ko rey. waaw. Mhm. Mhm. moom la gént jërëjëf. dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw léegi euh, ñu jël keneen ki ci ligne bi defe naa am na ku nekk ci ligne bi wala ñu xaarandi ko ba ci kanam tuuti incha allah 88. 628 04 05 ñu mën a ànd ak ñun ci 88 628 65 65 incha allah njëkk ci ligne bi salaamaaleykum allo. allo. waaw bisimilah. allo. allo waaw bisimilah. allo. waaw ñu ngi lay dégg soxna si. waaw ça va dama bëggoon dugg si émission bi. waaw bisimilah. waaw man daal dama gént. Mm-hmm. dama gént euh, suñu am na benn terrain bu nekk suñu kanam kër. Hmm. léegi ma gént terrain bi nekkaat armel. Hmm. allo. waaw ñu ngi dégg waaw. waaw ma dégg tere bi ma gis ma gis terrain bi nekkat armel ma taxaw ci kaw mur bi ma naan waaw lii lan la ñu ne ma ah lii de armel bu bees la. Hmm. may gis tomb yi nag tomb yu bari yi fa nekk. waaw loolu laa géntoon nag. waaw fekkee barki démb aussi dama géntaatoon dem toilette gis ay ver mooy ay saan. génne mm-hmm. ay saan yu bëri waaw. Mm-hmm. ay saan yu bëri ma gis ko ni si douche bi après. Mm-hmm. waaw loolu laa bëggoon ngeen leeral. dinañ ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf jërëjëf dinañ ci ñëw léegi incha allah. 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 ngeen mën a ànd ak ci ñaari numéro yooyu léegi incha allah. Euh, ñu jël ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaw sëñ bi doo wàññi rajo bi déggante bi nga gën a neex wala télé bi. allo. waaw bisimilah. loo def. alhamdulilah. waaleykum. jàmm rek. waaw man de hmm. gi daal mooy dama amoon sama benn bi mm-hmm. mu judd avant moo judd dama gént mu daal di judd solu yëre bu weex tàll waaye mm-hmm. judd loolu daal la ma jox ci gént avant muy judd ko gis waaw waaw loolu daal laa gisoon. yére bu weex taal. waaw mu bu weex bu mel ne genre euh, gouverneur daal seen yére yu weex yooyu ñuy sol. Mhm. ñuy défilé. waaw. loolu daal la ma jox. waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf. شكرا نشكركم غاية الشكر لحسن متابعتكم معنا حالا إن شاء الله ونحن آه. في انتظاركم السلام عليكم aleykum salaam sëñ bi nag soxna si ñu ngi lay ziar bisimilah. alhamdulilah dafa amoon gént gu ma doon laajte. dama amoon sama doom bu jigéen léegi moom bi ma ko nekkee en état moom dama daan gént tout le temps rek day am jigéen mooy ñëw indil ma or na ma sa or baa ngi xale bu jigéen. léegi gannaaw bu gannaaw bu mu juddoo. Mm-hmm. ña ñaari weer yu nekk damay gént mu dugg si ndox lab si may jooy bu mu dee barki dem rek la mujjee bi si konde la dugg. Mm-hmm. waaw ñaar yooyu daal jaaxal na ma dama koy gént lu bari muy dugg si dex wala kondiir wala dara daal ba dee si moo taxoon ma ma laajte. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah euh, shukran sanaati bi zalika xaalan incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo oui. bisimilah. waaw sëñ man dafay amoon gént ma géntoon. waaw bisimilah doo wàññi télé bi ñu gën a déggante bu baax. waaw xaaral. xaaral ma wàññi ko. allo. alors salaamaaleykum. waaleykum salaam wa euh, je voulais parler avec euh, euh, Oussa Kent. vous écoutons. comment. nous vous écoutons. ok. allez-y. allô oui. oui. allô allô. Hey, vous voulez nous parler. je voulais parler Kent. on vous écoute. da da bëgg wax da bëgg wax ak. Euh, waaw ñu ngi lay dégg. waaw da da bëgg wax ak ak Brigante. waaw ñu ngi lay déglu. waaw euh, man dama gént euh, barke démb allo. waaw. dama gént barke démb maa ngi. da ngay lo xanaa ko aan ka Haalpulaar. non non non non. ah bon d' accord d' accord. ay bismillah gisoon benn crocodile. da ngay wàññi tale ngay wàññi bi tale bi télé bi. waaw ma gis benn crocodile ak benn hippopotame. Mhm. waaw sama benn tubaab euh, moo ma yoroon sama xaalis. Mhm. après ma dem jël bor ma fay ko. Mhm. et puis bi ma doon euh, après ma génn ma gis ak ma benn xarit alo waaw. ma gis sama benn xarit su ma yore benn euh, sa crocodile ak ah, benn hippopotame. Ah. waaw. ma laaj ko fu ko jógee. fu fu mu ko jëlee. Mhm. après moom euh, dem ko jënd euh, dem ko jël si benn gaal quoi. Mhm. waaw et puis encore malgré tout fii maa ngi xeex xeex nit. ngay xeex. waaw ak ay nit. nga rey nit ñi ma xamul. waaw non maa ngi xeex ak ay nit. Ah. ñi ma xamul. waaw. waaw su ma ñëwee rek ma commencé jàng ma mm-hmm. waaw. après su ma commencé jàng ay la poursuivre. Mm-hmm. parfois nag bi koy jàng day day gis si man. Mm-hmm. waaw loolu. baax waaw wala parfois may gént encore maa ngi maa ngi waaw. looy def ci toile da nga sangu. non non du ma sangu parfois may gis ay ay yooyu quoi. d'accord. waaw. dinañ ci ñëw léegi allah dinañ ci ñëw léegi ci laaj bu soobee yàlla. shukran shukran wa nahnu ala kulli xaal nantadirkum kal aada bi diqatin wa euh, leen di xaar ci numéro yooyu incha allahu ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo. alo allo. allo. waaw xanaa du ñàkk euh, ligne bi moo xaw a jafe waaye dina àndaat ak ñun ci kanam tuuti ma zilna xatal an nantadirukum ala kulli xaal asalaamaaleykum wa rahmatullah allo allo waaw bismillah allo asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëriñ bi man daal dama amoon benn gént bu ma bëggoon nga firil ma ko mm-hmm. sama xarit euh, benn bakkan mm-hmm. moo gaañu depuis mille neuf cent deux mille dix. Hmm. keroog mu tëdd ba yàgg rek ci guddi àjjuma jële passé. Hmm. alors mu feeñu ma mi ngi sol grand bu weex tàllal loxoom ni hmm. ah ñu ci jekk macha allah. moo bëggoon daal nga fiir ma gént googu fan yii yëpp maa ngi lay jéem a jot mais mënuma la woon jot. waaw loolu daal laa bëggoon kii sama xaritu benn bakkan la tudde naa ko doom. waaw. moom laa feeñ mu jekk macha allah sol grand bu bu weex. waaw. Mhm. Ah. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. Ah, waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. Euh, shukran sa naati bi dalika xaalan incha allah 88 628 04 05 salaamaaleykum. waaw. ma wax ko nii wala. bismillah. waa damaa géntoon euh, euh, toujours damay gént dem di julli ji mais su ma géntee bi gént bi ma mujjee gént nii. Mm-hmm. allo. waaw. waa gént bi ma mujjee gént nii damaa fekk mbooloo mu bare toog ay jigéen ñu bare toog. Mm-hmm. après man ma dem jóg fi ma toog daal di dem jàppi bi ma jàppee ba pare daal di ñëwaat mais bi ma ñëwaat sama place dafa ñu fa toog mu xat ma ci samay daal dama taxawee ne di leen bàyyi ñoom ñuy julli man man ma ne su ma paree suñu paree julli man après ma julli. Mm-hmm. allo waaw ñu ngi lay déglu waaw bismillah waaw léegi boobu laa gént beneen bi ci topp mooy mhm. sama doom bu jigéen moo gént magam mi ngi France mu jox ko ay cadeau yu bëree bëree bëri ay cadeau yu bëri ba ma kii après xale bu jigéen bi nu indi kado bi di jooy mhm. waaw beneen bi tamit damaa gént euh, nu mu tuddati sama doom bu nekk France la nekk moom ma gént benn waaye ñëw nekk sama diggante ak moom mais benn moment dafa mel ne dafa seey gisatuma sama doom bi ma naan ko bàyyi sama doom bi mel ne liy xeexal moom di ko na ko bàyyi ko mais dafa mel ne daf ko seeyal ma gisatuma sama doom si gént bi. Mm-hmm. waaw ñett baax na dinañ ci ñëw léegi ci ñëw léegi bu soobee yàlla ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, bi maa ngi lay yàlla nangu ziar. amiin. bisimilah. Euh, en fait man dafa am euh, bu ma jaaxaloon. Mhm. kooku so sama doom la deux ans et demi la am. Mhm. Euh, dama gént yaram bi am ay picc quoi ay picc yu bëri ci yaram bi. Mhm. mais picc yi sax dem ba mel ni genre sax ci yaram bi quoi. waaw léegi nag ma doon laaj la quoi. baax na dinañ ci ñëw léegi dinañ ci ñëw léegi incha allah. ñu jël keneen ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. allo waaw allo. allo. allo. bisimilah. ñu ngi lay dégg. allo. ñu ngi lay dégg soxna si. salaamaaleykum. maaleykum waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ah, man de dama am ñaari gént yu ma géntoon. Mm-hmm. benn bi dama gént mel daal xew dama dikkee ni xew la. Mm-hmm. yëpp Maria nga xam ne daal léegi nag bu mu ko defee dafa am lu mel ni benn ligne. benn. ligne fi ñu weeree fi weeree noonu. ligne. waaw. si mm-hmm. ligne bi nag daf dañ ci. denc ay robinet lu mel ni si sas li nga sangoo. Mm-hmm. ci si kii si kóol bi nag man ma si ñëw ko di sangu mu sangoo ba pare may dox may dox di yëpp si nit ñi moom su ma jëlee su ma jëbaat na ma su ma waxee yaa ngi si nit ñi bi te nga def garab neen duggal si néeg bi noonu mën di la yéree moo moo wëññeeku dugg si néeg bi après mu indi la yéree si biir nag à part lu wax loolu. xam naa si sama jabaru rakk boo xam ne jëlaat mu ngi Espagne. la mhm. foofu laa yeewoo daal ba xam ne ma yeewu. waaw. beneen bi dama doon waaj mais ni daal man ak ay nit ñu waaj pour tukki. Mhm. bi ñu waaj nag pour tukki bi ñu am daal ñu wax daal ñu defar ñu defar ko ñu groupe boo xam ne daal koy ndox bu ànd meew da xam nga daal daal dafa dafa weex daal ci biir ci dañ ko jëndee nag ñu si ay siwo bon léegi man si yi mu mu jàppee siwo yi man dama gaañ si sama loxo yi daal sama loxo bi rek. nga jàppee siwo yi. mais si biir kii bi nag si gétt am na ku ma si xàmmee. gouverneur Kaffrine boo xam ne benn daal ñu ñaar ñoo ànd ca bokki bidaaw mhm. waaw moom tamit dafa jàpp moom tamit mu commencé mu ne man su ma ko laaj su ma laaj su ma dox su ma dox da da da day tas parce que rek waaye mhm. naaj ci bootam bàyyi moom tu bàyyi nag ma tin na yow nag mu jaaxam lool baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah 88 <clears throat> euh, 628 14 14 88 628 04 05 ñu leen di bàyyi xel ci numéro yooyu waaw ñu ñëw ci bataaxal yi nga xam ne fekk nañ ko fi seeni borom di ko laaj euh, bataaxal bu njëkk bi mbokk mi dafay laaj laaj bu ko euh, ñu jël ki ci liñ bi door a ñëw ci laaj boobu salaamaaleykum wa rahmatullah allo. waaw soxna si bismillah. Euh, ñu ngi jàmm sant yàlla. Euh, dama bëggoon firilu ay gént. Ah, bismillah. waaw man daal damay fartaal di gént lu bëri bëri di yore ab tout tànk kuy doog juddu. di yore ay doom. waaw benn doom. ba hmm. bu ko defee day jooy lu bëri bu ma ko téyewee rek mu daal noppee. Hmm. waaw loolu daal day nekk gént bu fartaal di ma dal lu bëri bëri. ma bëggoon xam nag euh, lu muy firi waaw baax na. waaw beneen bi mooy damay gént ñaari yoon sax ñuy ñëw mel ni kuy sàcc ci sama biir kër. Hmm. gént naa ko ñaari yoon waa benn bi dama ñëw fekk bunt bi tàcceeku ma ñëw gis tere bi ñu jël kook yooyu. Hmm. beneen yoon ma gis nit ñi di dugg may jéem a xeex ak ñoom ak yooyu ñu yor paaka xaw ma see jam tuuti sax. après daal di naan dañuy dem ci sama borom kër menacé ko pour daal di koy rey loolu yëpp daal laa bëggoon a leerlu daal. Mhm. waaw baax na jërëjëf. jërëjëf ñu ñëw ci laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj ko bëgg di indi ci ay bayaanaat mbokk mi ne dafa gént sëriñam bi koy jàngal alxuraan. fekk ko mu ñëw ci kër yaayam wala ci néegu yaayam foofu la gént gi foofu la laaj bi daggee su mënee dugg nag génne ñi indil li ñi li des ci laaj bi ndax ñu mën ko gën a leeral bu baax dina am solo ndax li kulli xolmin mabdaun wa intihaa euh, gént goo gis am na commencement ak fu mu jeexee gént gi nag buñ la ko indilee bi kaamil yi ci na mu gën a matee amaana leeral gi ci lay gën a am solo Eh, beneen bi ci tegu mbokk mi neen dafa gént eh, di wax ne moom saa yu ëmbee rek ñaan na yàlla saa yu ëmbee daal bu amee doom bu góor tudde ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te neen dafa toll diggante waaye nag comme que am na yéene bu toll noonu ci sayyiduna muhammad bés bu ko yàlla mayee doom góor daal eh, kóllëre googu diggante ak sayyiduna muhammad na ko matal ba mu mat sëkk ndax tuddee sa doom Seydina Muhammad euh, sallallahu alayhi wa sallam dafa am solo lool kon ñu bàyyi ci xel beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént euh, day gént gis boppam ci béréb boo xam ne bii day génnee ndox euh, da nekkoon na fa waaye nekkatu fa bërëb boo xam ne bi nekkoon na fa la yàgg waaye nekkatu fa gént di nekk bërëb boo xam ne bii danga fa nekkoon nekkatoo fa wala bërëb bi di génne ndox ñaari bu ci mën a am bu fekkente ne danga fa nekk te nekkatoo fa kooku da ngay dugg ci ay mbir yoo xam ne balaa sotti day yéex amma ida kaana almaau yaxruju min al makaan fa fii xeer ndox mi buy génnee ci place bi nga nekk nag wala place boobu benn la yiw la nee gént ne di wàccu wàccu woo xam ne yi la muy wocc dafay topp dafa bari bay dem ci beneen palaasu jàmbur waccu baax na xat-xat buy wàññeekul waaye bu ëppee nag ba dépassé woccu normal bay dem ci palaasu su jàmbur baaxul mën na la jural maradan xatiran fii jismik mën na la jural wéeri di yaram baaxul euh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént Euh, yaayam walla magu yaayam muy xeex ak moom walla mu dóor ko dóor yi metti walla mu di ko gis lu bari muy nekk ak moom ci benn bërëb ñuy togg ay ñam mu tiit daal bari na lu mu koy gis sa kilifa muy sa yaay sa rakku yaay sa magu yaay kenn koo ci gis ci gént mu dóor la yiw la su ngeen xeexee yiw la su la dóoree yiw la bu am solo bu ñëw ci woon na ci bàyyi xel amaa nag di togg ñam fi daarin qadima fa fii xayrun ala kulli xaal gént di togg ñam ci kër gu oyof bu yàgg moo gën di togg ñam ci kër gu bees kër gu bees baaxul mbokk mi ne dafa gént sëram bu jigéen marakam bu jigéen moo ko géntal moom mu lakk ci tànkam lakk nag ci tànk du lakk xabaar buy ñëw ci nit la allahu alam mën na nekk bu ni neex comme mën na nekk it bu naqari nañ ci bàyyi xel nee na gis na it waajuram bu jigéen rey nit ba deret yi di sotteeku alqatlu wa damu alladi yasilu ala rijli insan walqatlu aydan amrayn muxtalifayni fi lxulmi wa ala kulli xaal sa naati bi bayaanihima xaalan génte rey nit baax na da ngay am xewal bu lay bét jàmm ju bari amaa nag addamu muy deret xul naa dalik miraaran deretu guddi naqar la baaxul bu sottee ko ci say loxo baaxul bu dee ci sa tànk yit baaxul deretu guddi naqar lañ ci bàyyi xel euh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént moom it mu gis benn béréb boo xam ne béréb bu yaatu la mu mel ni dafa soppali ku nekk ay bàmmeel mu gis nit ñi niñ leen suulee ci biir ba mu jigi muy laaj kañ la li soppaliku nekk bàmmeel ru'yatul qubuur aw makaan waasi fihi qubuur ma fi xayr yu addi ila su'ubatin adida fi xayaatil insaan gis armeelu guddi xat-xat la looy xaar doo ci gaaw a wala looy xaar balaa ñëw dina yéex mooy ay armeelu guddi baaxul mbokk mi neen dafa gént doomam mu sol yére yu weex yére yu weex taal nee na te loolu mu ngi ko gis ci moom avant muy judd la ko gént ah, sa doom soo ko géntee avant muy judd mu sol yére yu weex bàyyi ko xel doom la ju yàlla mën a def dara ci moom doom la joo xam ne turam mën nañ koo dégg doom la joo xam ne yàlla mën na ko baaxee ci dara loo xam ni daañu ko ci dégg ci dundam muy la am solo muy euh, al ibnu alladi labisa sawban bayda wa huwa xata al an lam yadxul fi qayd al ay lam yuulad baadu ñu bàyyi ci xel beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént doomam bu jigéen muy ñëw ñu di ko di ko indil or wala magam bu jigéen wala rakkam bu jigéen wala doomu bu jëndi ko indil or euh, moo ko jaaxal or guddi naqaar la or ak fleur kilaahuma ala xaddi sawa ñoo bokk benn bayaan fleur guddi naqar la ñu bàyyi ci xel nee gis na ko it bi mu juddoo mu mel ni ku lab ci dex wala mu dugg béréb boo xam ne bii ndox da ci am xale bu tuuti buy door a juddu soo ko génte mu lab ci dex alal la joxan ne ñi dina ko am waaye dina am jafe-jafe su dee ci ndox nag ndox moo xam ne amul dara dafa set sa doom lab ci wala mu nekk ci biir ndox mi jàppal ne ku yàlla nar a baaxee na ci alal yàlla dina ko moy alal ju yaatu ala xaal waaye nañu bàyyi xel di génnee sarax sarax bi ci gën mooy alxamxu wa durratu qul na dalika miraaran al ixraaju alxamxi wa durrati fii xayrun ala kulli xaal ñe ñi di génne saraxu mboq ak dugub mboq baax na dugub baax na te moo gën ñoom ñaar ñoo gën ci sarax yi nañ ci bàyyi xel eh, beneen bi mbokk mi neen dafa gént eh, mbokk mi defe naa bitim réew la nekk nee dafa gént jësik ak hippopotame muy ñaari mbir yu ko jaaxal lool walla boog ki nga xam ne kii mooy xaritam moo gént ci la gént mu yor ñaari rab yooyu benn bi di jësig ak hippopotame mu laaj ko foo jëlee lii hippopotame ak jësig ñoo bokk benn bayaan ñoo bokk benn àtte mbir faru la mbir àndandoo mooy def noonu soo ko gisee jàppal ne gis nga faru boo gisee jàppal nga gis gis nga àndandoo mooy diggante hippopotame ak jësi amaa nag bu dee ci koo xam ne kii day day def zikr koo xam ne kii day wér tur yàlla ba gis façon rab ji mel noonu loolu beneen mbir la nañ ci ñëw nee na di xeex xeex bu metti ak ay nit waaye ci biir xeex bi mu ngi jàng ayatul kursi yi gis nga gént di xeex yiw la suñ la gañee yiw la soo gañee yiw la alxitaalu wa fil xitaali xayrun wa niamatun wa yusrun xeex yiw la xéewal la dafa am solo baax na lool ama qiraatu ayatul kursi yi jàng ayatul kursi yi incha allah moom it yiw bu bari la ci gént ayatul kursi nag dinañ ci ñëw incha allah wax leen ma ma ma ma huwa manfaatu hadihi al aya al karima al sharifa dinañ ñëw indi leen ayatul kursi yi ay njëriñam fan la jëme nit ak lan la mën a indil doomu aadama dinañ ci bàyyi xel ci kanam tuuti nee na beneen bi dafa gis boppam ci wanag ci douche wala yu mel noonu gis sa bopp ci douche te sangoo ba bonul ala kulli xaal su dee da ngay sangu it bonul ñu bàyyi ci xel mbokk mi nee na gis na xaritam boo xam ne bii raxala ilaa jiwaari rabbihi mundu mi zaman gis na mbokkam moo xam ne dafa génn àdduna bu yàgg mu sol yëri weex ñëw mel ni ku koy tàllal loxo sa xarit sa kóllëre sa am di jàmm isa raxala ilaa jiwaari rabbihi su génnee àdduna nga gis ko ci xaal bu mel noonu benn aw awalan bëgg na nga bi ci jëkk mooy bëgg na nga toppatoo ginnaawam benn bëgg na nga bàyyi xel njabootam ñaar bëgg na it nga bàyyi xel alalam ñett bëgg na it nga wutu ko ci ginnaawam ñeent muy ñaar ñeenti mbir yoo xam ne benn bu ci nekk eh, aji dem ji bëgg na ko ci xaritam boobu muy kóllëreem boobu mu taxawee ko ci ginnaawam ala xaal kon ñu muy lu jara bàyyi xel ala xaal ci mbokk moomu di laaj euh, euh, xaritam boobu nga xam ne dafa génn àdduna sol yére yu weex di ko tàllal loxo euh, mbokk mi ne dafa gént mbo mbooloo mu bari nee na mu ñëw fekk ñi waaj julli amul place nee na mu taxaw di leen xaar pour buñ jullee ba pare mu mu julli nee na booba it fekkoon na ko mu jàpp ba pare almaratu iza sallat salaatan kaamilatan fiha xayrun wa hiya aydan ida tawaddaat wuduan kaamilan fa fihi xayr nit muy góor muy jigéen soo géntee julli julli gi mat amul benn dagg-dagg baax na su fekkente ne julli gi matul nag dafa am dagg-dagg wala mu am tardement baaxul wa kazalika ni ki noonu alwudu u njàpp mi it su matee baax na su manqué baaxul euh, beneen bi ci tegu nee na gént na doomam bu jigéen ñi da ko jox ay kado ba ñoom ñëpp ñi ciy jooy wala boog moom muy jooy cadeau baaxul cadeau ñu jox la ko nga bég yi baaxul sa xol sedd ci baaxul ñi may la ko baaxul yaakaar buy tas lay jur ak loo dugg balaa sotti day bari xat-xat mooy kado amaa nag albukaa qul naa zalika miraaran wa takraar gént di jooy yiw la xéwal la am na solo lool beneen bi mbokk mi ne dafa gént doomu jigéen moo ko géntal muy sangu wala boog mu gént ci yaramam mu génne ay picc yu bare picc ci yaram baaxul su dee ci xale baaxul su dee ci mag baaxul beneen bi ci toog mbokk mi neen gént na gis mbooloo mu bari nee na it gis na liiñ boo xam ne dañ cee weer ay yére ligne bu ñu weer ay yére te weeroo ko fa baax na su dee yaa ko fa weer sax baax na beneen bi nee na gis na di sangu ci biir ndox génn soxnaam ne ko duggal ci biir ndax solo yére ma wutal la yére yaramu neen qulna zalika miraran al insan ida asbaha uryaana al jismi ay lam yalbas sawban fa zalika yadullu ala maradin xatir fi jismi al insan gént daf yaramu neen wéeri di yaram la feebar lay jur baaxul nañ ci bàyyi xel euh, beneen bi ci tegu mbokk mi ne dafa gént gis yëre yu weex sol yére yu weex mooy bu njëkk bi deuxième bi nee na fa gént yor siwo loxoom di naaj gént sol yére weex yiw la aaju gu faju la ci zaahir ak ci baatin waaye nag amaa nag man am sakk dalwan fa bada addamu yasilu min yadi min yadihi ila ardi fa dalika ma fihi xayr wa ma fihi manfaa gis nga su nit géntee yor siwo allahu alam lu ci nekk daraa ngi ci dara nekku ci waaye dere di tuuru rek baaxul bari aana looy bari yaakaar yu tas bari aana yit loo dugg di ko sumb du gaaw a sotti ah, beneen bi mbokk mi ne dafa gént bari aana lu muy gént di yor ay xale yu ndaw xale yu ndaw yor leen wërsëg la bu bari boo xam ne bii bu bu la ko yàlla di jox doo mer muy la am solo beneen bi nee na gént nañu sàcc néegam muy xeex ak ñoom xeex bu metti al alqital maa saariqin al insan ida raa annahu suriqa aw aw shay'un axara fi daarihi aw fi baytihi fa dalika yadullu ala anna shay'an axar anhu soo génte ñi sàcc sa alal sàcc sa yére sàcc say bagage jàppal ne am na loola yàlla nar a indi loo xam ne su ñëwee mooy remplacer loola muy la am solo euh, su dee xeexit kazalika alxitaal euh, wa fi lxitaali xayrun fi wa manfaa fi xayaati insaan xeexit am na solo nañ ci bàyyi xel euh, ndax li muy jural nit bari na ci wàllu xéewal beneen bi ci tegu Euh, mbokk mi nee na dafay laaj ne mu dafa gént euh, nekk ci jàkka di ci julli nee na ci biir jàkka ji naafila na ñeenti ràkka nee na bu mu paree nee na def na astaxfirullah téeméer def na it salaatu ala nabi téeméer waaye tur woo ko nijaayam joxoon ne ko mu di ko wérde nee na daa dem ba bëgg ko def rek far yeewu muy laaj loolu muy tekki Euh, la soo ko defee mu mat baax na su manqué baaxul soo ko defee ci biir jàkke it amatul xéewal la baax na amaa nag li gënul daal mooy li nga xam ne li summ nga ko dem ba war ko àggale mu manqué baaxul lu waaye di sumb te matul baaxul su matee nag yiwu bari la ala kulli xaal amaa nag azikru muy wérd dafa am solo ndax alaa bi zikrillaahi tatma'innul quluub loolu la ñuy alquran jàngaloon ndax tudd yàlla ci la xel yi di dale kon zikru dafa baax zikru nag bari na façon ku nekk am nga yoon booy defee zikr booy ñaanee sa borom ak bu noo ciy duggee ak noo ciy génne ala kulli xaal waaye daal di am solo te jar a xam mooy zikru moom am na solo lool ala kulli xaal ci dundub doomu aadama mbokk yi dañuy ubbi téléphone yi àndaat ak yéen ci kanam tuuti euh, du ñàkk ñu am ñaari téléspectateur wala téléspectatrice ñëpp ñaar wala ñett ki ñu mën a jël euh, door a ñëwaat ci waxtaan wi incha allah ñëw bi waat téléphone yi 88 628 04 05 wala 88 628 65 65. ngeen mën a ànd ak ñun ci ñaari numéro yooyu ñu xaarandi askan wi ci numéro yooyu ala kulli xaal euh, beneen bi ci tegu nga xam ni moom lañ ci gën a leeral euh, pour nit ñi bàyyi ko xel mbokk mi ne dafa gént dem ci benn kër di seeti xaritam nee na bu mu ñëwee ca kër xarit bi fekk fa xarit bi dafa fekk mu génn waaye nee na dafa fekk ci buntu buntu kër gi ay dàllu ci mu daal koy sol nee na bu dem ba ci biir ci la dàll yi dagg ci yoon wi dàllu ci yooyu mu soloon sol dàll boo moomul baaxul su daggee nag gën naa bonati ndax tataraakamu al mashaakilu wa yi alayhi jafe-jafe yi day yokk ci moom gën a tar gën a xat du lu gën dañu bàyyi ci xel mbokk yi dañuy bëggoon nañu ànd ak yéen lool ala kulli xaal ci seen émission tafsirul axlaam waaye waxtu wi moo ñu dab incha allah ñu koy jéggalu lool fa yéene ziyaara mbokk yi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa su ne ci waxtu wi euh, ñu ngi ziyaara sunu xarit sunu kollëre Adja Mati Ba di ziyaara Adja Soxna Ba Malick Ba Ndiku Fall ñu ngi koy ziyaara Adama Ndiaye maam Liisun ñu ngi koy ziyaara di ziyaara boroom këram Mansour Sarr Ndey Ba Bachir Ba ci Mauritanie ñu ngi koy ziyaara ak soxnaam Thiané Diagne Rose ci France nekk ci eh, baytullah al ñu ngi leen di ziara alaaji jaxabe kéema jaxabi eh, Medina Mbaye Mouhamadou Mbaye Mujibou Lay ñu ngi koy ziara alaaji Malick Kayre North Caroline ñu ngi koy ziara ak soxnaam Ndeye Fatou Samb Maxataal ci Italie ñu ngi koy ziara di ziara Adja Khoureja Ba Omar Dieng sunu xarit ñu ngi koy ziara di ziara ba tey eh, Soggu Sey gànjol gànjol ca Italie batoor ca Ohio ñu ngi koy ziara docteur Pouy ak soxnaam Ami Touré Abdourahmane Mbacke ñoom sëñ Massamba ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara Baye Cissé Angleterre Elisabeth Sagna ñu ngi koy ziara ak borom këram monsieur Sagna Bintu Ñang Asu Yoro ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di ziara Xaadim ca Norvège ak soxnaam Aysataw ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara di ziara Adja Alima ñu ngi koy ziara moom bu baax waa Daaru Xuddoos Mboro Adja Asugey ñu ngi koy ziara ci ak waa Daaru Xuddoos Mboro yëpp fàttewuñu kenn incha allah di ñaan yàlla sunu senegal yàlla na fi yàlla def jàmm tabaski bi yàlla ci dugg ci bismillahi jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin allahuma rabbi ya ilahi ya karima almanni ilahi wa ya jamila sitri wa ya azima shani innana maddatna aydina ilayk fala taraddu yadal basa wa raja minka allahuma rabbi innana maddatna aydina ilayk fala taruddu yadal baas wa raja mink wala tugayyib rajaana wa rajaahum wa rajaa jamii almuslimin allahuma rabbi la tugayyib rajaana wa rajaahum wa rajaa jamii almuslimin wa salli ilahi ala sayidina muhammad salatan taftah lana biha ababa rida wa taysiri wa tugliqu anna biha ababa charri wa taasir wa taqdi lana biha jamii alhawaij wa takuna lana biha waliyan fi dunia wal axira ya rabbi ya ilahi anta waliyuna fa niama almawla wa niama alnasir inna allaha malaikatu yusalluna ala annabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima allahuma salli ala sayidina muhammad alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqi qadri miqdaarihi alazim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin